l'histoire euh, des audiences euh, ou bien de l'immixtion de la France dans les affaires intérieures du Sénégal man gisuma réciprocité waaw ah, man gisuma non non non gisuma réciprocité entre le fait que le président Macky Sall recevoir Marine Le Pen ak le fait que mu am benn émissaire bu jógee euh, Élysée madame Choua dajeek Sonko amul réciprocité ça veut pas dire que dañu recevoir Macron fayu man gisuma loolu c'est deux actes non c'est deux actes isolés ça rien à voir parce que nous on est journaliste on est censé fouiller et funer audience boobu dañ ci doon dute ne am na amul am na mhm. moi naa la ko wax man am na benn ñaar c'était pour l'apaisement c'est-à-dire que pour que Sonko mette du, de l'eau dans son bissap ah maa la ko wax. dëglu ma. dëglu ma rek ma wax. dëglu ma wax ma ne dama naan journaliste laa. waaw kon nag war naa mën a am info. Amadou non mais mais am naa info. Amadou lu ma rek mu baaxee ñu info bi mu. dëglu ma rek dama ne la. Mhm. après tu pourras contester. dama ne dëglu ma rek. Mhm. dama ne sonk a reçu l' injonction de de l' Élysée dëglu baax li ma la wax. Ah à mettre la pédale douce oui. et à quel titre. à quel titre non déglu ma Élysée di di interférer non non mais parce que parce que bàyyi ma expliquer la ko. parce que Ousmane Sonko li ma lay wax da ngay déglu rek. Mm-hmm. di nga comprendre Ousmane Sonko. ki avait une position radicale vis-à-vis de la France radicale c'est ça qui a fait sa popularité d'ailleurs damay rappeler benn anecdote souvent ma ne populisme même dans l'expression da ko ci dangay ngay da ngay da ngay xool ni ngay capter capter sa sa sa sa audimat par exemple quand Ablaye Wade disait ba ma nangoo Sénélec ci tubaab bi ça fait donc moom il a toujours articulé son discours autour de nationalisme et de rejet de la France loolu la ma sa def tey bu demee bay toog ak lay médias français di accorder ay interview et ça c'est à la veille même de la présidentielle de 2019 Kër Atepa bii mu toog ci jardin bi euh, er, nu mu tëddee Jeune Afrique interviewé ko. Jeune Afrique c'est non non non moom la non c'est un média français j'ai travaillé à Jeune Afrique. non waaye <laughs> y a pas plus français que Jeune Afrique. y a pas plus français comme média que Jeune Afrique d'ailleurs Jeune Afrique ak RFI dañuy def ay ensemble def na Jeune Afrique xam naa la fa xew dëgg baax li ma la wax. il y a pas plus français il y a pas plus français que donc non rek ma léegi moom mi ngi dem bay toog ak les médias français Sonko commence à donner des gages pour wane ne ba il n'est pas réfractaire à la France que bam bu jëloon réew mi il va composer avec la France même le discours a changé maintenant il parle de de relations symétriques plus symétrique que ni mu amee woon mais ce n'est plus du du du France dégage et tout ça yooyu moom mais mais njàngum politique bee. commencé bokk mais loolu moo lay wax ne loolu moo lay wax ne sax la position des hommes politiques yi ñuy tuddee ay waxu xeet la position n'est pas figée donc parce que ko ko opposé parole am rek di nga gis na démb démb leneen la waxoon donc wax waxeet yi ñuy wax ñoom mag yi ñoom Ablaye Wade euh, Sonko mi ngi ci donc euh, c'est c'est c'est devenu une tradition dans l'espace politique donc du lu bees def na wax waxeetam ma ngay wax waa France mais France ci boppam moom ci boppam il a il a des gages actuellement. il donne des garanties Sonko donne des garanti pour wan leen ne man bu ma jëlee réew mi c'est pas parce que ni ma ko doon waxee euh, toutes les entreprises ay Total ak ñoom seen donc sous-entendre ne il faut rassurer la France au Sénégal mais moom laa lay wax pour prétendre à une élection mais effectivement pour prétendre remporter une élection effectivement non defal ndànk rek foofu c'est pas aussi arithmétique que ça hmm. c'est pas aussi arithmétique mais li am ba des mooy moom ci boppam xam na su fekkee ne position radicale boobu la continuer di def il a moins de chance il a moins de chance <laughs> non dafa ndànk rek il a moins de chance d'avoir cette cette cette cette cette notoriété au plan international parce que on va le juger comme un quelqu'un d'immature politiquement parce que xam nga les relations séculaires entre la France et le Sénégal du ay affaires yoo xam ne ay affaire la domination la c'est c'est c'est fini ça mais ku ci nekk yaay xool say intérêt nga défendre ko les états n'ont des, des nga défendre say intérêts mm -hmm. c'est normal euh, mais li am ba des mooy moom Ousmane Sonko commencé na di wax parce que ki ñu yónni waxul en son nom Macron moo ko yónni Macron te Macron depuis la France il a dit je de, je leur ai demandé de parler à tout le monde Macron l'a di hein je leur ai demandé de parler à tout le monde et tu penses que choix boobu mën na dugg ci dëkk bi te Macky Sall c'est pas possible xam nga Macky Sall yëg na ko Macky Sall lui-même a donné son aval Macky ci boppam le président Macky Sall a donné son aval donc ma moom laa lay wax foofu laay bëgg mu leer du question ay ay réciprocité wala ay pied de nez wala ay fayantoo non amu fi de le président Macky Sall est au courant de la visite de choix lui-même il a donné son accord <laughs> non lu leer laa la wax le président Macky Sall a donné son accord sinon kooku du dugg si si réew mi. gis nga li dal avocat bi keroog. le branco là. ah li ko dal gis nga ko donc il faut qu'on raisonne un peu li leer ba des mooy moom Ousmane Sonko na sénégalais yi xam ne désormais ma ngay wax ak waa France. merci mi ngi wax ak waa France pour les rassurer pour leen won ne man am naa un stature euh, une stature une stature d'homme d'État boo xam ne tey. man bu ma toogee nekkuma fi di génne ay total di in di génne di indi ay tulo oil parce que loolu lañ koy reproché les gens se bu bu jëloon réew mi ñoom total ak ñoom BP da leen di génne indi waa tulo oil ses copains mais mais bay ma rek ma terminer parce que le temps de parole dafa gudd trop mm-hmm. waaw mais mën naa rek mën naa rek mën naa rek daaneel mun naa rek daaneel ci question boobu parce que c'était la dernière question mais nañu jàpp ne Ousmane Sonko ma ngay wax ak waa France donc la mu doon reproché Macky Sall naan ko c'est un euh, nu mu tëddee suppôt de la France aujourd'hui lui il est en train d'enfiler le manteau d'affidé de la France c'est ça la vérité